mbokk yi yéen a ngi teewlu xibaar yi ci chaîne des valeur ñu sëgg ci li gën a fës li gën a fës ci xibaar yi ñu fas ko yéene waxtaanee mooy député yi nga xam ne daje nañu tey jii ci assemblée nationale ngir waxtaanee coppite yi ñu namm ci règlement intérieur pour makkaan gile mu di ab coppite goo xam ni ñu bari jàpp nañu ni Ousmane Sonko moo ko waral Abdou Mbow bu Benno Bokk Yaakaar di xamle ni lu amul daañu ko teewlu ci biir xibaar yi. bari na itam ay euh, këru tasu xibaar yoo xam ni dañoo fay seeni signal tey jii ci talaata ji ngir ñaawlu pression fiscale gi nguur gi teg ci seeni kaw bëccëg boobee ñuy tudde journée sans presse du média yëpp ñoo ko amal ci réew mi waaye nag Amadou Ba mu ngi woo nguur gi ak CDEPS ñu toog waxtaanee ngir mën a amal ab saafara ci jafe-jafe yooyu le ca Ziguinchor lii di pajtal gi dañu ko daal di euh, dakkal ci diirub ñaari fan. intersyndicalu liggéeykat yi nekk ci hôpital de la Paix bu Ziguinchor ñoo amal lu ni mel la ñuy ñaalu nag bokk na ci situation ba nga xam ni kër ga moom la nekkee ci bët saalumuk senegal dañ ko waxtaanee nu mu gëna yaatoo ci biir xibaar yi mbokk yi li moo gën a fës ci xibaar yi nes gis ñu faram fàcc ko aleykum dañuy doore ci assemblée nationale foofee nga xam ni député yi tey jii ci suba daje nañu fa ngir mën a waxtaanee. coppite yi nga xam ni moom la ñu namm ci règlement intérieur u makkaan gile ci ndaje moomee ba ñu ca jógee conférence u président groupe parlementaire yu ci mel ni Yewwi Askan Wi Benno mbokk Yaakaar ak Liberté Démocratie bu parti démocratique sénégalais ñoom nag daal di nañuy daje ba jàpp ab app goo xam ni namm nañu cee jàngat lii di coppite yooyee nga xam ni bëgg nañu ko indi ci euh, règlement intérieur bu assemblée nationale lépp nag tukkee ci ab euh, ñaan goo xam ni ay euh, député ñoo ko amaloon seen lim toll na si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent bañ ca jógee membre commission yi di commission des lois commission de la décentralisation commission du travail et des droits humains ñoom nag jàpp nañu ab ndaje suba ci àllarba ji ngir mën a xam nanka la ñu fas yéene liggéeyee ci coppite yooyee nga xam ni namm nañu ko ci règlement intérieur bu assemblée nationale bu ñu sukkandikoo ci ab wax yu bu bàyyi ko ci màkkaan gi li assemblée nationale la fas yéene amal ay coppite ci réglement intérieur bu euh, makkaan gile ginnaaw bi nga xamee ni juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay député ñoo ñaan lu ni mel ñu bari nag jàpp ni dara waralu ko lu dul fexe ba Ousmane Sonko mën a teew ca màkkaan googe ngir mën faa amal li ñoo tuddee déclaration de politique générale waaye kii di Abdoul Mbow dafa jàpp ni lu ni mel taxul moom njiitalub groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar ca Assemblée nationale la ñuy teewlu. critère bi nga xamante ne nii mooy wàllu liberté de la presse dafay doon critère boo xam ne dañ koy teg ci table ji muy FMI muy MCA bi nga xamante ne nii ay alal ju bari lañ ciy def ak ak yeneen institution yoo xamante ne nii ak réew moo xamante ni nii dañuy accompagner li nga xamante ni mooy économie réew mi loolu nag jàpp naa ne bu fekkee ne réew mu mel ne Sénégal vingt et unième siècle dañuy euh, bëgg a xoñoñal entreprise de presse yi seen liggéey xale yi ñàkk ko ñu leen di am pression fiscale boo xamante ni doy na waar ba pare nekk ci di leen xoñoñal jàpp naa ne loolu nekkul loo xamante ne nii lu gën la te loolu dañu koy ñaawlu di am suñu solidarité bu mat ci wàllu presse bi loolu mooy li nga xamante ni bëggoon nañ ko tàmbalee li ci des nag mooy bésu tey bi session extraordinaire bi dañ ko tijji pour réactualiser règlement intérieur bi te loolu nag dama yàgg di wax bokkul ak dara li nga xam ne mooy DPG bi moo naan déclaration de politique générale parce que nit ñi dañuy jaawale lu bokkul la constitution article 55 dafa wax ne premier ministre dafa war a ñëw def déclaration de politique générale ci assemblée nationale règlement intérieur bu assemblée nationale am na loo xam ne naam waroon nañ ko ci réactualiser mais loolu bañ ko tàmbalee booba nguur gi sax yeggseegul au pouvoir donc loolu mooy la marche normale des institutions donc loolu mooy li nga xamante ni tey moo indi session extraordinaire bi pare nañ tijji session bi bu ñu paree conférence des présidents la ñuy dem la ci topp mooy ñu dem commission après dem plénière pour jeexal li nga xamante ni mooy mbir mi merci. Euh, bépp nag tey jii ci assemblée nationale buñ ko dee xool bu baax ma nga ñeel kii di njiitu euh, jëwrin yi di Ousmane euh, Sonko ñu bari nag jàpp ni lu ni mel sax dafay waroo ak taxawaayub député yi nga xam ni seen mbir mooy mbirum loi jotewul dara ak wàllum exécutif moo waral Babacar Aba mbay di député bu taxawu Sénégal jàpp ni daal lu ni mel. toujours euh, euh, dara ginnaaw ba nga xamee ni sax ñu ngi namm amal ay euh, coppite ci réglement intérieur bu assemblée nationale terewul moom gëmul ni daal kii di Ousmane Sonko dana teew ca makkaan ga ngir mën a amal déclaration de politique générale am fi léegi at bi di jeex ñu teew lay kàddu. man tey sama yaakaar dafa xaw tas ndax dama jàppoon ni tey ñu fi ñëwee dañuy am règlement intérieur modification bu am solo parce que lu ñu war a bàyyil législature bi di ñëw la. je pense que bi ñuy installé premier jour bi li àdduna bi jàpp yëpp moo dafa nekkoon du xeex lu indi xeex yi mooy règlement intérieur bi dafa jàpp ni bu ñu demee élection président de bureau ñaari candidat lañ am ñu ñëw keroog xam ngeen ne amuñu woon ñaari candidat am ñeenti candidat ñii ne nii lañ defee ne ñii lañ defee mu indi xeex àdduna bi yëpp tam ñu et je pense que tey bu ñu bëggee defal lu baax pour législature bi ñëw mooy fexe ba règlement intérieur bi ñu ñoŋal ko defar ko ba parlementaire bi ak opinion politique mën am sa place parce que ñëpp xam nañu léegi fii mooy la place démocratique au Sénégal et je pense que yaakaaroon naa daañu soppi dafa ñu DOB bi c'est pas prévu agenda bi DPG bi premier ministre du ñëw kon lu fi jaroon ñuy changer règlement intérieur bu dee ñetti ñetti article la et je pense que tey bu dul ay ay changement de texte yu sew je pense que du euh, changement bu am solo et je pense que loolu nekk na benn marqueur bu nga xamante ne tey boo gisee Sénégal ñu am boo nekkee politicien def tournée boo duggee si gox goxaan da ngay foog ne sénégalais yi nekk ci biir ñoo gën a yeewu ñu nekk ci diggu taax yi lu ko waral tey presse bi mu ngi fépp information mu ngi fépp et loolu dañ ko amee suñu presse et je pense que tey bés bu triste la tey dañu war a teg débat bi pour xool nan la ñuy gunge presse bi ba mu am un modèle bu équilibré pour que li ñu ci naqari naqari askan bi mën dañ li naqari reporter bi mën dañ mais aussi li naqari patron de presse Ababacar Aba Mbaye di député taxawu Sénégal doon àddu ci li nga xam ni moo di jafe-jafe yi këru tasu xibaar yi nekkee ci Sénégal li ko waral nag xam ngeen ko moo di euh, bëccëg googee nga xam ni ñu ngi koy tuddee journée sans presse tey jii ci talaata ji bari na ay médias yoo xam ni dañoo dagg seen signaal tëj seeni buntu ngir ñaawlu pression fiscale bi nga xam ne jàpp nañu ni nguuruk Sénégal moo ko teg euh, ci seen kaw waaye nag du média yëpp ndax am na ñeneen ñoo xam ne liggéey nañu waaye terewul ñaawlu nañu itam jafe-jafe yi nga xam ni këru tasu xibaar yi ñu ngi koy euh, nekkee ni ñu ko amalee ci ab euh, édito commun goo xam ni bari na ay këru tasu xibaar yoo xam ni fësal nañu ko démb ci altine ji jàngat leeg Alioune sekk lu ëpp ci ay médias yu Sénégal daal nañu topp mot d'ordre bi nga xam ne moo di journée sans presse ngir alerte li jëm ci wàllu mesure yu yees jëm ci wàllu fiscalité ak économique ci autorité yu yees yi te ñu am tiitaange ci seeni ëllëg li ëpp ci journaux yi dañoo daal di banque seeni loxo ci bésu talaata tey rajo privé yi teg musique ci waxtu bi nga xam ne moom la ñuy defee seeni journal yenn ci ay télé privé daal di dëgtal ay visuel ak ay slogan yu éditeur de presse lu ci mel ni ñetti loxo te ñu dugal ci ab crayon xaatim ci journée sans presse ngir fësal seeni solidarité ci li ni yenn ci ay journal ñàkk wormo ak li lu ci mel ni quotidien soleil ak journal yi di Walf Quotidien ak yoryor yor journal boo xam ne daanaka sax ci nguur gi la féete seenu télévision yi di RTS ak Walfadjri wëyal ci seeni programme kuréel bu ŋànk patron presse yu Sénégal di conseil des diviseurs et éditeurs de la presse au Sénégal bi lëkkale privé ak public daal dinañ xam ne ni liberté de la presse la ñu xokkatal fii ci Sénégal ñu fësal li ni mel altine ci presse locale bi ñuy dànkaafu autorité yu yees yi bokk na ca lañ leen di arto lu ci mel ni blocage yu ñeel seeni compte bancaire ñàkk fay li nga xam ne moo di impôt nangu yenn ci seeni jumtukaayu production dagg ay contrat publicitaire ak yenn ci ay payoor jëm ci média yi waaye la gën a fës ci blocage bi mënees nañ koo jàppe mbirum fiscalité bi dox diggante tele yi ak gouvernement bi te mel na ni nguur gi fas yéenu caa dellu ginnaaw éditeur de presse yi jàpp nañ ne mbiru fiscalité boobu dafay daal di asphyxier seeni rédaction te méngool dara ak seeni doxalin bu ñu sukkandikoo ci chiffre yu disponible bor bi nga xam ne média Sénégal daal na ko yoreel ñii di waa trésor mu ngi toll ci ñeent fukki milliards ci suñuy koppar moo ne sax jiitum réew mi bi fi woon diggoon na leen dindi benn pàcc ci boobu leboor waaye li ni mel jotul woon antu laata muy génn ci nguur gi mu ngoog bari na ay taskatu xibaar yoo xam ne jàpp nañu ni daal mbirum lemp boobee bu fekkee ni teguñu ko ci suuf daanaka dafa mel ni ab xocc goo xam ne dañu koy def këru tasub xibaar yi ci jamono joojee nag jàmmaarloo gi ci diggante nguur gi ak këru tasu xibaar yi nekk ci Sénégal mu ngi gën di wéy di gën di tar moo waral ñu bari di wooteer ak ab dal ci diggante ñaari pàcc yi waxtaan ba déggoo xool naka la ñuy def ba mën a indi ay saafara si jafe-jafe yi nga xam ni këru tasu xibaar yi ñu ngay jànkoonteel ak moom nu ni mel la waxee Amadou Ba nekkoon njiitu ko jëwrin yi ci Sénégal ay kàddoom mi ngi ko yëkkatee ca médina Baye foofee nga xam ni dafa doon amal ab tukkib nemmeeku ci wetu xalif bu médina Baye Cheikh Mahi Ibrahim ñas ñu teewlu ay kàddoom. Sénégal kilifa diine yi dañ fi am cër bu am solo euh, ci réew mi jàpp naa ni looy yëkkati looy def war nga waxtaan ak ñoom euh, ñu ñaanal la ñaanal réew mi yëpp et ça c'est important. waaye ginnaaw ñaan bi it xam nga euh, kilifa diine yi ñoom ci la ñuy euh, fii ku am soxla ci ñoom ngay dem donc euh, askan wi dañ fi ñëw boo waxtaan ak ñoom njariñ la et ça c'est important donc moom fi andi woon waxtaan ak sëriñ bi. loolu nañu ko jéem a saafara nu mu gën a gaawee fay impôt lu jaadu la il faut que entreprise yi fay seen i impôt ça c'est une chose beneen bi il faut que état bi jàppale entreprise yi li tax ma mën ci wax it yàlla dafa dogal. Euh, dossier yu ma xam la liggéey naa ci lu ëpp ñaar fukki at euh, yu mel ni yàgg na fi am euh, ñuy waxtaan ak entreprise yi tey ñu juboo suba ñu xeex mais li am solo mooy nañ ko yemale ci techniciens yi bàyyi leen ñu waxtaan toujours di dinañu trouver ay ay ay compromis je pense que cela est essentiel ci wàllum njàng ak njàngale la ñuy àddu wax ci ndongo yi nga xam ni ñoo gën a ràññeeku ci diwaanuk Saint-Louis ak li nga xam ni moo di euh, ndàmp euh, yi nga xam ni jox nañu leen ko ngir rek mën leen a sargal ginnaaw euh, résultat yu am solo yoo xam ni def nañu ko ci atum deux mille vingt 2024 bi téeméer ak fukk lañu nga xam ni jot nañu seen i neexal tukkee ci conseil départemental bu Saint-Louis nga xam ni njàng ak njàngale mi daf ko boole ci pàcc yi ëpp solo ci taxawaayam gannaaw ba nga xamee ni koppar bi ëpp ci euh, budget ma ci euh, wàllu woowee la koy dugal bu ñu sukkandiku ci kii di président bu conseil départemental bu Saint-Louis maître Moustapha mbay ñu teewlooy kàddoom avec l'appui des conseillers dañu jagaleel lu tey nag fukk yoo jël euh, juróom ñaari ci moyens yi nga xam moom la ñu investir ci jumtuwaay yi nga xam moom la ñu investir ci département bi éducation nationale lañ ko jagaleel. parce que dañu jàpp ni éducation mooy li nga xam ne mooy tax mooy assurer égalité entre xale yi euh, moo xam ci euh, famille néew doole la jógee moo xam famille bu aisée la éducation mooy li nga xam moo leen di yemale loolu moo tax fukki at yi yëpp ñu jël. pàcc bu rëy si suñu budget bi jagaleel ko tabax ci ay classe tabax ci tollook euh, juróom ñaari fukk ak benn classe tabax ci euh, ñeenti bloc administratif tabax ci euh, fukk ak ñaari bloc d'hygiène pour que xale yi nekk dans des conditions yu ñu xam ni dañu mën a jàng tabax boole ci aussi équiper leen équiper leen en tablement boole ci également réfectionner établissement yi nga xam ni seen dañu xawoon màggat wala soxla woon ay réparation donc ba ñu demee nag ba nga xam ni def nañu fukki at loolu yëpp ñu réaliser ko ñu ni woon nag ren euh, non seulement continuer ñu loolu mais dañu bëggoon ren tamit ñu jël suñu xale yi suñu doom yi ñi nga xam ne ñoo ci gën a ràññeelu ko ci njàng mi ñoo ci gën a def ay effort am ay moyens yu yu euh, yu euh, importante ba 17 ñu ni woon ñooñu dañ leen di dajale fii pour récompenser leen ñu xam ni département bi yëg na effort bi ñu def ñu xam ni aussi département bi war na leen sargal mais aussi ñu fexe ba nga xam ni seen xarit yi nga xam ni yàlla def na amuñu woon euh, euh, moyen yooyu euh, bu dëwënee ñu bëgg ci bokk donc mooy li tubaab di woowee émulation. ca Ziguinchor la ñuy dem wax ci pàcc mi nga xam ni dafa rekk lompoñ ca bët saalumuk réew mi ci jamono joo xam ni euh, liggéeykat yi ci euh, yëngu itam ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel moo waral ab toogaanub ñaxtu goo xam ni amal nañu ko takk ay morso yu xam ko lañ ca xamle nag moo di ñaari fan yoo xam ni dañ ko fas yéene banque seeni yoxo ne duñu faj aji feebar yi lu dul rek ci service euh, d'urgence yi intersyndical bi nga xam ni moo ëmb liggéeykat yooyu yëngu ci hôpital de la Paix bu Ziguinchor moom daal dinay ñaawlu situation bi nga xam ni établissement boobule moom la nekkee naam sax am na ab déggoo goo xam ni xaatimoon nañu ko ci atum 2023 ci seen diggante ak gouvernement bu Sénégal ñu teewlu ki yor seen kàddu Marc Sambou fi daaw lañu amoon ay protocole d'accord bu ñu signé woon ci octobre 2023 mais ba tey ji gis nañu ko lu bëri saafarawuñu ko moo tax tey nag moo moo waral tey ñu daje fii tey pour waxtaan waxtaan ak suñu ay suñu ay camarades pour jéem a saafara saafara mbir mi. mbir nag si ay fànn lu bëri la tànku. lu gën a solol mooy étanchéité bi ak accès accès hôpital bi hôpital bi dafa nekk si zone boo xam ne dafa bëri taw te nawet bi dañuy sonn loolu mi malaat yeeg mi accompagnant yi mi ñun ñi sax di liggéey si hôpital bi dañ si jànkoonte ay jafe-jafe yu bëri. jafe-jafe yooyu nag tax na tey ñu yooxu wallu di wut ku ñu ko saafaral parce que hôpital bi hôpital bi dafa dafa dafa nekk si zone boo xam ni zone zone frontière la waa Guinée bi suñu mbokk Guinée Bissau suñu mbokk Gambie mbokk Guinée Conakry sax fii la ñuy fajoo te hôpital bi dafa jot tey pour ñu yóbbu ko niveau 3 parce que hôpital bi moo ngi yor ay ay kàngam yoo xam ne ay prof am nañ presque onze professeurs agrégés sans compter spécialistes yi sans personnel paramédical bi donc dafa nekk ñaxtu boo xam ne moom la ñu moom la ñuy yooxu tey pour loolu nag dañoo décréter grève parce que grève soo gisee sax grève bi hôpital nekkul loo xam ne nekkul nekkul bërëb bii grève bañ ne ko hôpital la paix jàmm rek la woote mais nag woote jàmm te fekk siw ñu si il faut il faut que nga nga jéem nga jéem a waxtaan convoqué waxtaan loolu moo indi waxtaan bi donc nag moo tax nag suba ak gannaaw suba dañoo décréter moo doon de grève mardi 13 ak mercredi 14 ak respect du service minimum mu ngook ñu dellu ci ci ndakaaru dem ca diwaanu uh, Wakaam foofee nga xam ni bari na ay ndaw yoo xam ni am nañu ay ngaañ démb ñeneen ñi ñu doon leen di teg uh, loxo ci ab uh, doxub ñaxtu goo xam ni dañ ko doon amal la ñu doon ñaawlu nag moo di suuf si ca diwaan wa nañu koy caqat caqatee collectif ba nga xam ni ñu ngi koy tuddee sàmm moomeelu Wakaam ca cité avion doon jàmmaarloo ak takk der yi ngir ñaawlu suufuk Wakaam wi jamono jamono jii na nga xamee ni noonee la ñu koy foqatee ci seen i loxo ñu ngi cay duut baaraamu tuuma nag bokk na ci ñi nga xam ni ñoo féetee ci wàllum euh, l'armée bi ci Sénégal Papa Ibou sekk moo yor seen kàddu taxaw pour ñëw xeex sunu moomeel fii si biir Wakaam mais nag d'après gis neen xam ne ne am na ñu nekk si suuf di mboroo di oote neen ay alerte pour loolu pour ñu bañ a dox li ñuy dox ñun nag dinañ dox dinañ dem ba si lieu bi dinañ taxaw dinañ wax li ñu bëgg a wax te suuf si dañ koy récupérer suñu loxo réaliser ñu ñu ngi def seen affaire suuf leneen nag suñu deuxième attaque beex troisième attaque bi ñuy wër ñoom bu ñëwul taxaw waxaa ñun dina am neneen nu mu fa demee te bu boobaa dina metti territoire bi yëpp biir wakaam fii yëpp oto dootu fi duggati oto dootu fi génn problème bi mooy camp yi ñu wër moomeelu wakaam yi ñuy jël ñoom ñi nekk si état bi ak ñeneen consort jël ko di ko def ay bâtiment de logement pour ñoom du yoon loolu du yoon gënuñu ñu ndey gënuñu ñu bàyyi bay jël suñu suuf di si dëkk di si def gënuñu ñu li ñuy xee nii pour ñun pour xale ndaw yi wakaam desatul espace wakaam amatul dara loo xam ne ne ñun mën nañ fi jël suñu boppa pour gis seen ba boo yi ngay gis fii nii yëpp si benn terrain dañ koy pour huit heures suba ba vingt deux heures benn bii moo fi ne espace ñu bëgg ko def ay bâtiment ñoom seen i defar seen i doom bañu ñu si ba ici repose bañu ñu si dara te bu boobaa buñ leen ko waxee dinañ ñu ko gëm lépp loo xam ne ne si moomee la wakaam la nan ñëw ñu toog si table bi ñu jox ñu li ñu moom nan ñu jox sunu yëf ñoom ñii nekk seen ginnaaw xam neen ka te ñu ngi jàkkaarloo ñun si biir dëgg ñoom nii ñëpp ñoom ñëpp heure jot seeni tur bu jotee liste ba fii ñoom ñëpp dinañ toog si table bi lire seeni tur dëkkuwaay baax na waaye itam am fay féexalee sa xol dafa bokk ci dunduk euh, doomu aadama yi mbokk yi li mooy li gën a fës ci xibaar yi amoon mbégte di ci ànd ak yéen di leen jox rendez-vous suba ci jotaayu xibaar yi ba tey ci chaîne des valeurs jàngeen jëf